ñu ngi lay siyaare bu baax a baax ñu ngi jege léegi nii ci sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul euh, ñëw ngir ci turu président Macky mu yebal fi délégation bu toll nii loolu xam naa ne ki nga xam ne mooy jiite délégation bi dana leen lim ci kenn ku ci ne ci ñoom am nga ko ñoom ko lëre yow nag bi sa taxawaay fii ak sa toogaay fii du mën a def lu dul ñaanal la nga yàgg fi lool ci wér ndax sagu yoonu murid yépp nga sagul islam bi nga ku dégg sa kàddu yii fan yii moom laa lu doon wax léegi nii ñun ñëpp ñoo ko rafetlu ndax day wan ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul rekk la ñor kon bëgg maa soreel damay ubbi lépp loo xam ne wax nañ ko ci ki nga xam ne mooy yónni délégation bii muy si diggante ak président Macky Sall bari na loo xam ne ni xam nga ko dund nga ko ak moom seq nga ko moom ci lépp dëkk bi tax ak yoonu murit kon loolu moom duñ ci mën a yëkkati ay kàddu di ci sori ndax buñ ko dee xamit yaa ñu ko gën a xam euh, dañuy wax ne rek sa xarit sa soppe sa nit ki nga xam ne doyloo na la lool tey moo yebal délégation bu mel noonu waaye nag fekk ñu fi ñun ñi nga xam ne it sax njaboot lan ndax suñu Seex Abdou Lahad Gaynde Defaat ma ñu ngi nii ak Maxtaar Jóob ñoom ak mboolem ñi nga xam ne saa dàgg Abdou saa dàgg ñoo ñëpp ñu nekk sax njaboot nekk ci dëkk bi euh, kon mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom ci doon sax njaboot ñu ngi ñuy toog ci sa kanam waaye ma bàyyi euh, ki nga xam ne mooy chef de délégation muy ministre Oumar Youm mu yëkkati kàddu wax ñi mu àndal ci turu président Macky Sall wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëñ Mouhamadou Bachir ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay ca mart ba mu toll di la nuyu ci sunu tur délégation bi ak turu président Macky Sall président Alliance pour la République mu yebal ñu ak euh, Mansour fay nekk xaritam nekk gorom ak ministre Moussa Baldé ancien ministre de l'agriculture ak euh, Seydou Gueye ministre Seydou Gueye porte-parole gouvernement ak euh, du Kassé directeur général sa taalibe euh, Maysa Mayokor directeur général sa taalibe kooku fegoog sa wet Mor Ngom nga xam ne ñëpp xam nañ sa diggante ak moom sa taalibe ak jigéen ñu tedd ñi nga xam ne moom lañu ñu àndal ministre Néné Fatoumata Tall Jéegi ah, Diop ak euh, honorable député Fat Thiam ak honorable député Dior Mbeng euh, am na ñoo xam ne mën naan honorable député Matar Diop dañ koy boole ci délégation Touba bi nga xam ne ñoo ñu accueillir fii nekk sa njaboot ak sa honorable Sadaga ak sa kenn gi nga xam ne kenn la ci yow mooy sëñ Cheikh euh, ñu ñëw tey ci turu président Macky Sall ak maire département bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ak responsable politique yëpp ñëw andi la ziaram di la ndokkeel ci bés bi di la ci massawu coono xam na ne sëñ Touba bu xewlee ba sëñ Muntaxa jël ko lu ci ëpp ci taxawaay yaa koy taxawee taxawaay bu rafet bu mucc ayib ba Sénégal yëpp kontaan ci démb rek ñu ngi lay suivre ci déclaration yu am solo yi nga xam ne fan yëpp yaa ngi koy def pour ñaax nit ci njub ak dëgg ak liggéey ak ak bëgg jaamu yàlla ñu ngi la ci sant di la gërëm bu baax président nag daf ñu yónni woon te yónnent bi daanaka waxtaan nañ ci ak yow ndax lu ju bari lu ñuy dox nii dara ump la ci euh, xam nañu président fam la teg yow it xam nañu fa nga ko teg ci cofeel ak kóllëre ak euh, bëggal ko ndam ci biir ak ci biti moo tax bi ñuy ñëw dama la woo nga wax ma ne ma defee ko nii jaareel fii ñëweel fii noonu lañ ko doxee léegi la ñu jógee ci sëñ bi macha allah mu teeru ñu waxtaan ak ñu dalal suñu xel ah, kontaan ci délégation bi nga xam ne président yónni na ko ci bés bu tedd yi ñu dugg ba ñu fa jógee nag dañuy ñëw ci yow rek ndaat la waxtaan bi président Macky Sall yóbbante rek mooy gën a boole boppam ci yoon wi nga xam ne moom it taalibe la doom la wóllëre la mun nañu boo demee ne leen sëriñ bi loolu ma nekkoon démb maa ngi ñaan sunu borom mi nga xam mooy kàttanal yàlla bu mu ràppe ci suma ay loxo yàlla nañu ko sunu borom di ñu ko fulal at bu jot ñu gën a nekk taalibe sunu cofeel di gën a rëy ci sañ Touba cofeelam di gën a rëy ci sëñ Muntaxa mun nañu boo leen demee it na ko wax ne lañ doon liggéey démb di ko ànd ak moom ci yoon bi tey lañ ko gën a ñeme pour ànd ak moom ci yoon bi ndax ndamam mooy sunu ndam sagu Sénégal la sagu lislaam la lu amee ndam Sénégal am ndam mu ne nag nañ ko wax ne ko moom mu ngi taxaw ci kanamam moom ak njabootam ak képp ku njaboote ci président Macky Sall pour li sëñ Mountakha bëgg ci Sénégal bëgg ko ci yoon bi mu yombal ko ba mu mat sëkk loolu daal la waxoon lañ ko wax di la sant di la gërëm ñun nag ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu président Macky Sall jege woon ko man mi nekkoon directeur de cabinet xam naa sa taxawaay ci wetam xam naa cofeel bi nga doon ànd ak moom ci mission bi ñu ko dénk xam naa conseil yi nga xam ne ñun ñi nga xam ne jege woon nañu président yaa ngi ñu koy jox pour taxawaay bi ñu war a taxaw pour Sénégal dem ci kanam moo tax tey wax dëgg yàlla bi ñu defee fukki at ak ñaar ci bopp réew mi mën nañu ne liggéey bi ñu fa liggéey lu ci ëpp say conseil ak say xalaat ak sa jàppale dugan dugg na ci bu baax a baax a baax donc moom nee nañ nañ la amal cant spécial ci yow ndax moom Euh, sëriñam nga waaw mu ngi lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom yan bii nga xam ne mu ngi ci sa bopp yal na ko sunu borom woyofal ba ndam li nga ci bëgg nga am ci lu weesu sa njot ci barke Seydina Mohamed barke Sëñ Touba mi nga xam ne tey lu lu xew moom la ndax li ñuy def nii yëpp liggéeyam bu yàlla gërëm euh, moom moo tax mu ngi ñaan sunu borom may Sëñ Touba yooyu yàlla nay law ba Sénégal waxuma sax murit waaye képp ku dëkkee Sénégal wala Afrique rek nga ciy sant sa bopp xam ne sëñ Touba payam amul frontière mu ngi lay sant di la gërëm bu baax di ñaan sunu borom xew-xew yi ñu jëm yàlla nekk xew-xewu jàmm dong yàlla buñ ci dégg dara loo xam ne tolof tolof la ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah di delloo nuyu bu baax la ministre Omar Youm ak mboolem délégation bi nga àndal bépp te xam naa buñ ci tuddee euh, Mansour Faye nga xam ne tudd nga ko léegi ni mu demee xam nañ ko tudd ci it ministre Mor Ngom ak euh, Serigne Modou Mbacké Baara Dooli suñu doom ak sëñ Abdou Lahad ak euh, Seydou Gueye ak Makhtar Diop ak mboolem ñi ngeen ànd ak ñëpp te bi ngeen dikkee itam ngeen fekk fi Serigne Abdoul Ahad Mbacké mu ànd ak yéen gunge leen ngir mottali kóllëre kon ñi ngi nuyu ñi leen di delloo nuyoo ci président Macky Sall di ko yóbbanteem nuyu ak cant ak ngërëm ci lii ndax bu ko defutoon it lu tax ñu sikku ko ci ndax diir mu fi nekk mosu koo manqué mosu koo manqué mosu koo ñàkk def kon kàddu yi ngeen wax yëpp dégg nañ ko bu baax moo tax kerewu bi ma woowee ma ne la dimanche yi walla talaata bu leen ci jubu rek baax na ci ñun nga ne ma kon talaata ji dana baax waaye na ko ñaka jekki noonu la ko daa defee moom ci boppam balaa ma saa ñëw tubaa damay woo ne ma laajal ma sëriñ bi mu jàppal ma bis noonu naka jekk noonu la daa def kon nag bu demee ba néew fii it waaye xam nañ ne xolam ak xelam mi ngi fi te. lii nga wax léegi ci sa biir kàddu yàgg sëñ Modou daanaka yóbbaale na samay kàddu ndax suñ diggeek moom yéen xam ngeen ko rawatina yow ak Mansour ak Mor yéen ñett ñëpp moom xam ngeen suñ diggante daa diggante la bu rafet boo xam ne itam yàlla defe na yàgg na ndax ba muy nekk Petrosen nekk nekkagul sax ministre boobu yàgg na ba maa ngi fàttaliku 2004 bi mu nekkee ministre de l'intérieur 2004 da na bu jumut laata ñu koy def premier ministre keroog ba mu defee discours mooy cérémonie bi suñu saali mujj fekke ba mu fa jógee sama kër lañuy ñëw ànd ak Cheikh Mbacké Sakho ak Omer Seck kon diggante bi yàgg na jiitu na muy nekk ci nguur gi yàlla def it bi mu agsee ci nguur gi it sëñ Sidi Moxtaar boole waaj ñu doxali ñu sama digg ak moom kon lu fi jaar ci fukki at ak ñaar lépp rek seere laa ci waaye ma xam ak jàppam ci sëñ Sidi Muxtaar ak fu mu ko ngir sëñ Tuubaa diggam ak Cheikh Mahmoudou Mountakha mi itam nag moom yàlla dafa def mu jëkk ak cofeelam ci moom ak jàppam ci moom jiitu muy nekk sëriñ Tuubaa moom ci moom yaakaar moo tax sëñ Mountakha waxal la ko boobu ñëpp dégg mu wax kóllëre gëm fasante woon ak moom bi mu do bi mu jotaayu fii fii bu ma juumul sax fii la ko waxe woon ñëpp yi dégg ma bari ci loo xam ne it mat naa ci seere te ñun du fakk jëf duñ ko fàtte ndax diir lu fi nekk feeñal na yéenam ak jëfam ci dëkk bi te loolu lu fi jëf rek danaa ci dikk la ko ci Sëriñ Muntaxa waxoon waaye la ci ëpp solo loo xam ne mën naa ko naa ko leer tuuti ci jotaay bi mooy 2019 bi muy door a falu ci deuxième mandat bi mooy yoon wi njëkkee gisante booba Cheikh Mouhamadou Mountakha yónni ma ci moom kàddu yooyu sax laay leeral daanaa ko junj nag waaye Serigne Makhtar Diène fekke na ko lii may bëgg wax nii Cheikh mun Mountakha ni ma boo demee santal ma ko gërëmal ma ko te fedd li ko sama digg moom nee ko itam lii mooy li ma ko yéene woon li ma koy digal nag mooy lépp lu mu daa def ci dëkk bi ak njabootu Sëñ Tuubaa gi bu mu ci wàññi dara na koy def ngir jëmbi Sëñ Tuubaa te ci séntu poy Sëñ Tuubaa lépp lu mu daa def ci réew mi itam ci bokk jullit yi lépp na ko wéy te ci séntu payu yàlla suñu borom ñi seqal adduna it mooy politiciens yi lu man ak ci rafetal ci diggam ak ñoom na ko def daan am ku mu tudd boobu mi ci kaso bi ma ne ma nee ko occasion bu mu njëkk am na ko bàyyi daa tudd geneen kilifa ne nee ko lu man ci rafetal ci digg moom na ko def nee ko bu dee mañ sama jëm bopp nag sama aju faju na ba noppi bëgguma dara ba ma ko waxee daanaka ronqe ñi xaw na sottu suñ mataar jenn ngi toog kon suñ mu taxa moom suñ tubaare la àndee moom moom itam mu jox ko cër nag cër boo xam ne xam naa ci dara ndax ku fonkoon sëriñ bi la te teg ko ci fu kawe te am ci yaakaar te it xam naa ni it ku fonk kàddoom la ndax ñu bari jàppoon nañ ne sax dafa bëggoon def troisième mandat waaye man ba muy door a fal 2019 yoon moo ko njëkkee gisaat ci la ma nit ñi dañuy wax rek du ma ci wax ndax bu ma ci waxee ndëgg réew mu yàqu waaye fas moo ko yéene moo ko ci lam moo tax man naka jekkit bu nit ñi daa wax dama naan leen ah man de li ma dégg ci lam ñam du lu suma wax ci bitti nag waaye mosuma gëm ne nee na cim xelam Cheikh Mouhamadou Mountakha mii xam na ci dara teel naa xam ne fosu ko yéene fàttaliku naa it kàddu gu ma waxoon te loolu dama gis naa ne mi ngi koy jëfe mas wax ne ma man de bu ma jugee ci réew mi du ma gëstu sama ginnaaw kon loolu li ko suñ Muntaxa seereeloon ci bi muy bàyyi ne ko liggéeyal nga réew mi bu wàccoo nga ak ñoom leen da nga leen desel mooy seen mandat muy troisième mandat boo leen ko delloo rek wàccoo nga ak ñoom kon day mel ne kon wàccoo nag réew mi la ca desit mooy bi mu demee bay jeexal itam rafetal na ko te loolu itam nit ñi dañ ko ci war a sant ndax jàmm moom lépp lu koy indi cim réew loolu amatul pay te jëf na ci jëf ju rafet mooy maandoo maandoo xam ne réew mi yàllaa ko moom Sénégal yee koy joxe ku ñu tànn jiitale rek mu bàyyi te bu defoon leneen tam réew mën na cee doxe dugg ci kàmb te ko loolu ñëpp koy rëccu kon loolu itam defal na ko Sénégal muy jëf ju rafet kon ñu ngi koy sant bu baax ci bisu tabaski gi sax woo naa ko ndax fekk boobu ma gëj koo dégg ndax xamoon ne mi ngi noppal maa ko war saa ndokkeel ko ci julli gi ginnaaw bi mu mu rappelé ma ñu waxtaan lu yàgg kon cofeel gi ak jàpp gi mu jàpp dëkk bi ak sëriñ bi xam naa dara wàññiku ci sëriñ bi it moom wax na ko ba tey sama kóllëre rek moom du àdduna kese ba ëllëg la loolu moom moo ko wax ci làmmiñ ma dégg kon loolu mënu su ko weesu kon ñu ngi koy yóbbante atuk cant ak gërëm di ko ñaanal ci noppalu gi mu nekk yàlla gën ko ci jàppale gën ko ci dimbale defal ko teraanga fa mu nekk te sàmm ko sàmmal ko ginnaawam yéen itam ñu ngi leen sant ndax rafetal ngeen lépp ndax ku ci ne rek moo doon wax sama digg moom du ma xam fu mu yem kon suñu laxat ngeen defaat ma rek bu ngeen yemoon ci moom doy na sëriñ Modou mii tam bu ngeen yemoon ci moom doy na waaye bi ñu ci des ñëpp ñu ngi sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu والقلم وما يسطرون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 رحمة ربك بمجنون